Euh, deux mille vingt quatre euh, c'est décidé le vingt cinq février deux mille vingt quatre incha allah le Sénégalais yëpp nar a dem euh, voté ji yow nag en 2012 ñëwoon nga nga indi sa programme comme ni nga ko waxee mm. sur un plateau nga wax bu nekk ni nga koy réaliser lan ngay réaliser ak bu nekk noo ci réaliser bii paa nga ñëw ànd ak gor yi jot na donc ñu bëggoon xam tey lan nga bëggoon proposer Sénégalais yi c'est vrai que je ne veux pas tey dugg ci programme bi euh, avec beaucoup de détails mhm. parce que kii ñuy remplacer c'est pas pour un problème de programme ou de réalisation ay ay rakkaam ñoo jeex est-ce que waaye kan buy bëgg a réélire day naan man li ma def li ma def moo tax maa ngi leen di ñaanaat mhm. ngeen jox ma lii c'est parce que moom dafay war a organiser élection yi te bokku ci mhm. kon sur le plan matériel na ngay magnifier le bilan du chef de l'État vous savez man je loin d'être nihiliste ku wax ne le régime du président Macky Sall depuis 2012 ba léegi defu fi dara c'est parce que mooy puusal ma toog nga bëgg c'est ça qu'on appelle euh, l'opposition nihiliste bokkuma ci d'accord du ma naan du rek dama ne bokkuma ci il y a du positif il y du négatif dans le dans dans la gestion également bon sur l'aspect matériel euh, le bilan est là gis ngeen ñu bëri def nañ ko fi mhm. ça c'est vrai sur le plan matériel balaa may dem ci li matériel si vous prenez par exemple l'histoire du TER la man boobu ma nekkee biir dem dikk di siège ci CODIRU conférence euh, DG yi près de ministre des transports amoon nañu ko mardi bu nekk avant le conseil des ministres parce que il ñu sol ko balaa muy dem bu muy dem au conseil des ministres mu am lu mu yóbbu j'ai toujours di même su fekkee le TER bi nga xam ne sax dawul sax France français yi sax jënduñu ko mm-hmm. ñu ngi ko ci benn société boo xam ne qui était en faillite Alstom quasiment mm-hmm. ñu ñëw jëndee ko à ce coût là de presque mille milliards sept cent quatre-vingt mille milliards hors taxe déclaration du président de la République à l'inauguration si vous mettez les taxes moom xam nga fu mu jëm wax ma nag les avenants moi j'ai trouvé que c'était pas une priorité ak fu Sénégal toll parce que des pays comme le Nigeria ont fait des trains adaptés à leur réalité moins cher que ça même le Maroc oui même oui bien nit ñi dañoo sonn c'est vrai que la mobilité urbaine et interurbaine dafa war am mais il faut se mettre à la page loo xam ne France sax nangu ko jënd vous avez entendu Idriss Seck ba muy naan ci train bi lu mu jo wax. Mm-hmm. waaye ba su ñu koy inauguré ba ko ne cëpp ñëw taxaw dugal ci biir train bi dafa ne eh, président loo wax noonu la rek loolu mooy cette politique politicienne yoo xam ni man je je vraiment je je ne retrouve pas dans bu dëgg jotee yàlla moom la bëgg nga wax li ngay wax la teg nañ fi train bi kenn waxatul du rentabilité financière on vous dit rentabilité économique et sociale mm-hmm. Mm-hmm. plus muy daw plus muy creuser du déficit xaalis bi ñuy leb FMI ak yooyu moom lañ koy fayee leb pour fay at vous trouvez ça c'est normal ñu ngi naan cent quinze mille voyageurs par jour ils ont atteint les cent quinze mille c'est fou donc moi je trouve que mënoon nañ jël beneen train moins cher boo xam ne pour jëlee ñit ñi ci banlieue bi longer autoroute bi ñëw ba ville s'il le faut jaar fu mu war a jaar yëpp mais moins cher ça existe mm-hmm. et donc euh, pour toutes ces raisons là sur le plan matériel ouais, il y a un bilan qui est là mais il y a des problèmes d'accord sur le plan matériel vous pouvez prendre également sur euh, nu mu tudd agriculture bi la souveraineté alimentaire depuis indépendance Sénégal ba léegi depuis cette indépendance Sénégal ba léegi on n'a pas la souveraineté alimentaire et Zimbabwe bi mi ngi am souveraineté am c'est vrai que indiwaat nañu 83 de de tracteurs qui risque de se retrouver en Mauritanie parce que première dose bu ñëwoon yu bëri ñu ngi Mauritanie. Hmm. ay di ko ñu koy jaayaat. donc vous savez maa njëkk a def te amoo surveillance savouré mais sur le plan immatériel loolu moo sonal Sénégalais yi da ngay gis ku sàcc picc ñu door la deux ans tout de suite ku trafiqué des billets <laughs> de banque war ci génne milliardaire ngi tëdd këram actuellement. maintenant maître yow sa programme. lan ngay proposer Sénégalais vous savez programme yëpp que ce soit la santé que ce soit euh, nu mu encore la su man on met l'accent sur la jeunesse et l'emploi ñoo nekk ci kanam parce que réew mboo xam ni les gens ne travaillent pas vous leur donnez du poisson vous ne les apprenez pas à pêcher loolu dafa war a deñ parce que keroog ma jox la benn exemple fi xew keroog. en pleine euh, semaine ah journée travaillée vous voyez des gens dem def ay grosses manifestations à coût de dix mille francs bu ñu doon liggéey loolu dana mhm. a le chômage qui est endémique. Ouais, ouais. et puis deuxième exemple mu lay jox ci loolu pour que jeunes yi di leen war a defal jox ñu liggéey d'abord vous avez entendu la LONASE a explosé son chiffre d'affaires. mooy mm -hmm. les gens vivent du jeu du hasard. Mm -hmm. Et puis, ñu ciy ñu ciy ñu ciy ñu ciy bàkku ah. je dis mais les gens ne travaillent pas donc ils vont aller jàpp ay ticket toog fal ci la jeunesse la dafa a am solo. loolu nag pour que ñu ngi di il faut implanter ici des industries de transformation. Mm-hmm. lu ñu fiy def bu ñu koy yóbbu à l'étranger transformer ko foofu di ko dellusiwaat ñu ne bàyyi ñu transformer ko fii. Mm-hmm. et faire des conditions fiscales yuy permettre. établir euh, industrie étrangère yi ñëw di fi di fi établir ay oto fekkee c'est trop cher en Allemagne mais gars yi indi ko fii la main d'œuvre est moins chère mm-hmm. je pense que c'est rien que les États-Unis sont partis à Taïwan da ngay gis ay made in Taïwan mais ce sont mm-hmm. des industries américaines mm-hmm. Adidas sax yenn affaires yooyu yëpp soo ko ubbee da ngay gis li ko defaree yooyu yëpp ce sont des choses qui doivent être faites sur le plan de la santé tey à mon moyen plateau médical da ngay dee c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont mhm. été construites euh, construits à Kaffrine d'ailleurs ça a beaucoup aidé pour accident bi xewoon si Kilom vous avez également des hôpitaux à Kédougou à Sédhiou mais également à Touba mhm. ak leneen lu fi nekkoon également mais il faut démocratiser le plateau médical dans tou le pays parce que le Sénégal ne se limite pas uniquement à Dakar ou aux environs c'est vrai y a benn bloc bu fi nekk yooyu yëpp euh, ci liggéey bi la nekk mais vous savez également que notre diplomatie doit être beaucoup plus économique qu'en euh, l'ancienne vous voyez mm-hmm. euh, c'est ça aujourd'hui pétrole lu ñu am am gaz ce n'est plus le phosphate ce n'est plus l'arachide donc on doit s'imposer quand Poutine ferme le robinet en Europe compte tenu des résons géostratégiques ouais. mais l'Europe se tourne vers la, euh, le Sénégal pour avoir son gaz mm-hmm. hiver la ñu nekk mais donc soo gisee président Macky Sall ñu muy dem di ñëw ñuy ñëw ñoontamit tamit la le chancelier ñëw bi fi ci fële ñu jëm signer des accords donc accords yi war na nekk des choses aussi pour que askan bi gis si boppam non no non non notre mer la no notre côte c'est labouré par de à travers des accords de pêche yoo xam ni qui ne sont pas surveillés je mets l'accent sur le mot surveillance bërki démb dégg nañu benn bateau bu fi ñëw bu fi nekk mais kooku kan Sénégal moo ko trouvé non non Greenpeace. Greenpeace ouais. ça jox nañu ay contrat ay licence jox ko gars yi gars yi di labourer su ñu nee ba moom les filets euh, mini minimum le poisson bu ñu war a jël c'est un kilo mais gars yi defar ay filets yoo xam ne daañu jël sax ay poissons yoo xam ne dii grammes la dañuy mm-hmm. labourer mer bi. or que temps quand même pour que ñu mën a recycler or que les mm-hmm. côtes sénégalaises mauritaniennes sont les côtes et nigériennes sont les côtes les plus poissonneuses au monde. d'accord donc loolu moo tax. chômage bi si xam nga euh, l'industrie de la poissonnerie lu muy lu muy dégager en termes d'emploi yooyu yëpp di nga ko war a xoolaat je vous parle même de de notre CFA ba mu amee moom ñu amee nu mu tudd euh, gerte beeg arachide bi vous voyez la Sonacos Sonacos doit être fermée aujourd'hui en 2023 bi ñu nekk ils ont fait une catastrophe ci campagne arachidière oui parce que prix bu ñu fonctionne les gens sont tournés mm-hmm. dem jaay ko ñeneen chinois yi tey ñu ngi ci anacarde bi pour pour survivre donc c'est pour vous dire également que sur ce point-là il y a des choses à faire pour protéger notre économie mm-hmm. à partir du moment où nous sommes devenus un pays avec du pétrole mm-hmm. avec du gaz ak le zircon mm-hmm. ak yeneen le Sénégal ne devrait être un pays d'immigration mais d'immigration y a des gens qui vont venir donc il faudra rétablir pour des raisons de sécurité les visas a euh, Alhaji Assane euh, mhm. maître wax na euh, en quelque sorte daf ko résumé. Mhm. li nga xamante ne. je parce que dama am ay ay yoo xam ne ñu ngi discuter pour monter la coalition je ne venir. Mhm. wax lépp ñun ñooy fekk lépp ñu ne waa kii dafa defar ay affaire am yëpp non c'est pas ça. man samay idée bopp laa la jox nii. mais il est clair que ñu ngi toog. am na ñuy ñëw ñu ngi waxtaan. su ngeen sama page Facebook mais bu ñu ñëwee ba toog ku nekk dañuy def benn réunion boo lu mu gisee yëf yi ñu tënk dara d'accord ko mooy nekk programme